non baax na baax na waxal waxal. nday am nday am teel mi tuuti. non mënul génn baax mu toog waxal waxal rek waxal waxal la ma bëgg a wax. waxal la ma bëgg a wax. maa ngi sant suñu borom nag. waaw parce que bu ñu commencé ba léegi moom laa jiite. waaw te gëm naa ne yàlla moo ma jàppale. dëgg la yàlla rek laa àndal. maa ngi remercier yàlla suñu borom bu baax a baax a baax. di wax salaamaaleykum. ñaareel ba maa ngi sant samay waajur ñi nga xam ne dañ sant tamit képp koo xam ne nii jël nga sa kurus nga taxaw nga ñaanal Ndeye Khady maa ngi lay remercier bu baax gis naa nit ñi seen taxawaay gis naa nit ñi seen ñaani ama kenn seen fay dëgg la surtout sama avocat maître Balde bu bu problème bi commencé ba léegi section de recherche la ma toppee bu fekkoon ne xaalis rek la bàyyi woon tëkkuma ngir xaalis rek comme ça day laa rakkam laa daf ma jàppale si dossier bi daf ma soutenir si dossier bi toujours daf may jox courage même tey suba bi may ñëw huit heures suba laa jullee sama kër woo ko téléphone na ko maa ngi tribunal mënu ma fekk ma sama bureau ma dem mënu ma ndeykat yi mënu ma naa mënu ma courage bu ma la xamee woon damaa bëgg nga dolli ko ma ne ko tey laa gën a am courage maa ngi sant yàlla suñu borom nag parce que dossier bi man comprendre ma décision yu ñu jël sant yàlla suñu borom nag parce que dossier bi man comprendre ma décision yu ñu jël mhm. mais xam naa ne dossier boo ci génnee complicité de viol bu ñu lay toppee ñu génnee ko ba mu set insultation de dëvës bi ko ba mu set leneen lu ñëw tamit ragalatuñ ko dañuy yàlla suñu borom bi parce que ñëw nañ si jàmm ñu ngi ñibbi si jàmm ngi sant yàlla suñu borom kon kon yàlla attan na leen yàlla attan na que moom ko Ousmane Sonko dañ ko doon defloo ñaawteef yàlla atteegul ma sax ak moom parce que maa ngi waat si yàlla suñu borom bi ne ñu may wax dara laa ci xamul. Mhm. dara laa ci jegewul. Mhm. ku taxaw tribunal nga gëñ si si ëmb bi nga ëmb nga xam ne li ngay wax dalaa ñor te dama taxaw tribunal ma ne lii bu fekkee li may toppee dama ko def sama doom bi nangam ak nangam. Mhm. nga xam ne yàlla suñu borom rek laa yaakaar. te yàlla laa wóolu. te yàlla laa dénk sama bopp si kanam. yàlla laa dénk sama bopp si ginnaaw. yàlla laa dénk sama bopp ci lépp. te dossier bi gëm naa ne yàlla rek moo ci teg loxo. yàlla suñu borom bi kese moo ci teg loxo bu fekkoon ne yàlla tegu ci loxo lii lépp du ci am. moo tax moo tax may sant euh, euh, la euh, tëj léegi na a fekk lan a loolu xaw ma ci dara. lu ma xam expliqué naa ko. Mhm. xam naa daal maa ñëw naa sama kër géey ko naa sama kër huit heures julli fa ñëw maa ngi ñibbi sama kër leneen. d'accord bu ñëwee rek ñu ànd ak borom. d'accord merci beaucoup kon ñu bàyyi la nga nga dem noppaleeku